salaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen ziar yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay audio bii may def nag dama bëgg sénégalais yëpp tasaare ko ci panel yëpp ba Sénégal gépp xam ko mu dugg fépp armée police gendarmerie renseignements généraux douaniers aux frontières les commandants de bord ak ñi nekk ci aéroport yi jas ñi nekk ci frontières yi Mauritanie Gambie fépp ak ñi nga xam ne ñoo nekk aéroport militaire bu Yoff ñëpp ñu ngi leen di interpeller ñoom ñëpp leen wax ñu vigilant di surveiller yaa a des mouvements yu garaaw a garaaw a garaaw Macky Sall mi ngi nekk di dépouiller l'état du Sénégal Macky Sall mi ngi jël auto présidence yëpp di ko may ay xaritam di ko may ay géwalam di ko may ay mbokkam benn oto fa ko fee yenee bàyyi semaine bi yëpp mi ngi maye ay oto mi ngi takkale ay grade mi ngi signé ay décret di jox lu ne saboté état bi def lépp makki Sall léegi nii lañ may informé ne makki Sall présidence tableau yi objet d'art yi nga xam ne am na yoo xam ne dañ ko finir avec des filigranes en or nga xam ne ki ko ko mayoon mooy le roi du Maroc le roi Hassan II moo ko mayoon Sénégal ci temps Abdou Diouf Macky Sall nga koy démonté doom ji Amadou Sall ña ngay roñ def ci ay conteneurs yóbbu Maroc amul lenn lu ñu bàyyi ci réew mi ci ci palais bi ñu ngi buub lépp di yóbbu boobu ay milliers de milliards la ñuy génne du ko def ci ay jet privé muy dem jaar Mauritanie dem Dubaï ñu ngi génne xaalis ci réew ay centaine de milliards ñu ngi koy sàcc di ko génne oto yi ñu ngi koy joxe biens yi nekk ci réew mi yëpp Macky Sall nga koy di dagg ay cent milliers de passeports diplomatiques di jaay ay milliards ay Aïssata Tall Sall ak Macky Sall ñuy defar ay passeports yu dul jeex ay centaines voire des milliers de passeports di ko defar par jour yi ñu koy jaay un million deux millions cinq millions par passeport yi ñu koy may seen ay xarit ñi ngi jël réew mi yëpp di ko caxat caxate président Ousmane Sonko président ba Bassirou Diomaye Faye tous les services de l'État doivent veiller parce que Macky Sall n doit plus quitter ce pays dès le bu ñu jëlee lenge yi nañu nangu passeport am bu mu génn réew mi Macky Sall amatul sañ-sañu génn réew mi parce que lii muy def c' est extrêmement grave extrêmement grave dégg na nag ay ndëgg sërëx yi mu def ci biir police bi def ko ci biir armée bi ak gendarmerie bi yëpp ngir saboter gouvernance su président bu jamaay fay président Bassirou Diomaye Faye lépp xam nañ ko on a des oreilles partout mais lii maa ngi koy sàkku président Bassirou Diomaye Diakhar fay le deux boo jëlee lenge yi mesure bi ngay njëkk jël mooy réew mi bu kenn génne rawatina Macky Sall parce que dama ne woon nañ ko bàyyi mu dem nañ ko kii ndax lii lii mais Macky Sall mérité wul respect Macky Sall bëggul Sénégal Macky Sall ku bon la Macky Sall moo yées wallahi azim mi ngi yàq réew mi mi ngi caxat caxatee réew mi passeport diplomatique ay milliers de passeports ñooy génn grade yi mi ngi joxe di takkal ay raaya di sàcc ay milliers de milliards ci ay jet privé yi jaar ci oto yi ñu duy ay camions ba mu fees ak xaalis bëtt frontière Mauritanie bi yóbbu ko pour mu dem Dubaï ñi ngi jël ay table ay bien ay tapis ci pale bi bàyyi wuñu dara oto yi te Toye tooy ñett ñetti oto la ko Macky Sall may mu ngi ko yóbbee ca toolam ba nekk diggante cinquante ak Pout Bamba Fall jox nañ ko benn oto ñoom mbay peex géwal yi kenn ku ci nekk Macky Sall nga jël alalu réew mi di ko séddale ndax day dem saboté lépp na ko sénégalais yëpp xam Macky Sall moo yées Macky Sall moo bon man dama noonu nañ ko bàyyi nañu gëmm nañu kii mais Macky Sall bu mu génn réew mi kii il faut que ñu tër ko il faut que ñu tër ko il faut ñu tër Macky Sall Macky Sall moo bon ak a ne toon ngeen partagé ko mu yaatu sama xol jeex na